Hadji Ahmed Aidara bismillah cay suñu politiciens yi lée am fañañ fañ-fañ-fañ te wata caax barke rasuur laay enquête yéene kaay ne président Macky Sall day jaxase na carte ga de maa la ko wax dama ne la président Macky Sall kay lépp loo xam ne waroon na ko day daal dina lay faxas na teg leen na lay rawatina nag ñi nga xam ne dañ doon xool ba ngam ba maanaam président siabal ya waaw Théodore Montey député la nee bu nga li nga xam ne dañoo mel ni Amadou Ba ak Mimi Touré waa APR de ñoo ci gën a ñàkk de ñoo ci gën a torox de maa la ko wax parce que Aminata Touré jëlee na ko fa Oumar Youm jëlee na ko fa Aly Ngouille Ndiaye jëlee na ko fa Mohamed Boun Abdallah Dionne jëlee na ko fa Matar Cissé jëlee na ko fa Amadou Ba jëlee na ko fa te gis président Macky Sall day ah laataa loolu jëlee woon na fa kon Mbaye Ndiaye Aline Badara Cissé Moustapha Cissé Lo ak ñeneen ak ñeneen sax Chérif Théodore yamu ca parce que député bi nee na gis nga lii nii nga gis nii yëpp du dara nag lu dul te dialogue ba la jugee rek dialogue ba la jugee te dialogue boobee nekkul dara lu dul ab complot koo xam ne kon complot woon nañ ko ci ndoddug askanug Sénégal gi lée askan wee ñàkk rek maa la wax loolu léegi nag seetlu leen nekkoon ab dil la gars doon waxtaane te dil boobee nekkul ci diggante kenn ku dul Macky Sall ak Idrissa Seck dañ doon dil nag laa la wax dëgg la parce que ci ay seetlukat yi ay observateur ña nga jàpp ne président Macky Sall day ma ngay dëcc ak a tas opposition bi moo tax mu def lii Idrissa Seck moom tey ne déedéet man day yaakaaruma loolu de bu ñu bëggee tas ak a tëcc ak a dóor sa adversaire politique ko ah waay ngeen a fàtte complètement laa la wax Chérif Monteil yëmu ca parce que député bi nee ana jafe-jafe yi nga xam ne kon moom la sénégalais di dund looloo jar a bu ñu la laa la wax président Macky Sall mi lay ay intérêt boppam dong moo ko tax a dugg nag laa la wax xoolal leen ma ndaw yi ak réegu mitti gi nga xam ne kon moom la ñuy dee temps yi lée waaw Macky Sall déclaration bu gën a ndaw defu ko ca ña nga xam ne kon ñoom la dénk nag wàllum ko ci Mimi Touré dàq na ko Aly Ngouille Ndiaye dàq day mooy lëf la de mooy ba daal Idrissa Seck la le cas polémique waaw waaw Bougane Gueye Dany ak ñoom a ca gëm sa bopp day ah. te doon jàppale nag Idrissa Seck ci élection présidentielle 2019 ah nee nañu lii Idrissa def day d'accord duñ ca de démarqué nañ de bokkuñ ca de te tey la ñu gën a wane ca opposition ba ñoom waa gëm sa bopp Bougane Gueye Dany nag daal dinay fàttali day ne ñoom tey moom la nit ñi dund dëgg la li Idrissa Seck def daal ñoom Bougane Gueye Dany d'accord uñ ca la Idrissa Seck def Babacar Diop FDS léegi la waar d'accord ñu gën a nekk ci opposition bi laa la wax loolay dëgg de parce que ne xeex bi ak xeex yorinu musiba mbaa bakumba bi nga xam ne kon moom la Macky Sall mi la yoree mi nag laa la wax bëgg soob li ne kurpe ñu politique yi day ah, mi ngi nii la de kurpe ñaa ngi nii la de Macky kay daal di dëggal attaqué nañ ma ci awàllum politique ay yoonu yoon waaye maa ngi dund ba léegi ni ne dé critique yéen nekk yow defoo lu dul wor c'est la haute trahison wor dëgg wor la dee parce que yow ci jamono joo xam ne opposition bi day ña ngi doon ci ay xuloo kan mooy njiital opposition bi ba juboo njiital parti réew mi di Idrissa Seck yow ca jamono joojee nga yëkkati ab jaas wala am yat ne ko jar sa naata nga daal di jël say bagaas ak say ngànnaay fekk day <gasps> Ablaye Wade daa woo Idrissa Seck ba mu dikk ah. looloo ñàkkaloo Idrissa Seck kon élection présidentielle yoo te moo ni de ah. na lool waaye a muus ñëpp ah fa muy te gis nga lii Idrissa def ni lée dana jur musiba mbaa ba kumba biir parti réew mi de ah maa la wax loolu te parti réew mi xoolal ñaata nit ñoom ñoo fa jugee gum rek yéene kaay groupe Futurs Médias gi ne jugee cib leader ba ci dealer politique Barthélémy Dias day moo njëkk a yëkkati tuumay laa la

waaw dama ne la su ko jébaloom ji la ay millions yi millions la ko négocier laa wax maar di taal Idrissa Seck nag dafa nekk ci ay jafe-jafe xaalis ay difficulté financière ak banque yi ah, ah. yi nga xam ne ko da koo hypothéqué ba pare président Macky Sall nekk def fanweeri millions la doon jox Idrissa Seck weer wu dee wu ne la ilaha ne Idrissa Seck kay daal dinay ne dil ba Sonko yoonu pale ba kay kay nag lancé en tout cas Macky Sall day waaw daal dinay rey nag ay nitam ba pare Idrissa Seck réew mi quotidien ne fa alewul sax Ablaye Wade ndeysaan ma kay looloo jar a laaj le tey mooy yéene kaay ne Macky Sall kay daa libéraliser gouvernement bu bees bi libéraux yee fa ëpp de directu ñu se mbuur moom wàcc na dàq nañ seen doom jaw moo ni nag Omar Youm mu dàq day mooy son meilleur ministre aa nag Ousmane Sonko xanaa léegi nag mooy chef exclusive yéene kaay waaye yow joon fan la